Dans le cadre du mouvement Action pour dimbali waa Médina par rapport à nos activités de développement que nous faisons à travers le pays donc ñu gis ne comme am na fi cellule à Médina ñu recenser des besoins par rapport à la population et besoins yi pour le moment besoins en matière d'éducation la ci wàllu école bi parce que pour ñu jàppale xale yi ñuy jàng pour ñu am ay ay fourniture xam nga école ubbi na te yenn parents yi parfois dañuy am problème pour am fourniture bu ñu ko waxee rek ñu jox ñu une liste de 300 jeunes yu a dimbali ak aussi comme dañoo nekk affaire période de mbas ñu may leen ay gel ak ay masques jàppale ne dañ dimbali parents yi ak élèves yi loolu mooñ ñu fi indi à travers la cellule d'action Médina. professeur Daouda Ndiaye fii la jànge Sénégal fii la tekkee fii la amee lépp euh, avant muy dem bitim réew avant may dem France dem Amérique mais lépp lu ma am fii laa ko amee yàlla ñëw tey. ak ay ay raaye ak ay ay ay ay ay liggéey ak ay alal boo xam ne fii laa ko liggéeyee ba dina am jox ma ko donc ce qui fait day yoon te dañoo nekk ci dëkk bi nga xam ne état mënul def lépp dañoo nekk ci dëkk bi nga xam ne il faut que doomu aadama yi ñëpp jàppale ñu mën cee génn ku ci nekk fi nga nekk da nga war a sa bay sa waar yàlla taxaw nañu ñu ngi koy sant bu baax parce que yàlla moom moo baax defal ñu ko gëm naa ne am na ñu ma gën a liggéey Sénégal ñu ma gën a waroon am bu profité yàlla joxuma ko dama war a jël li ma am ma boole ko ma delloo ko askan euh, moo tax ma créé mouvement parce que bu loon euh, financement yi ma jot sama recherche du am bu loon école yi ñu ma jàngal école yoo xam ne budget moo ko créé ak les taxes et les ma egg si fii. te ñu fi jàppale rek moo fi nekk fii ku fi man amul ku ñu jàppale liñ ma jàppale démb à travers l' enseignement la santé ak ay ay ay ay bonne volonté ma jàpp ne man tey dama war a fay bor bi ñoo ñu ma jàppale gisatuma leen xaw ma leen donc c' est important et c' est normal que ñu nga xam ne ñoo fi nekk te ñu seeni doom parce que Sénégal ñëpp benn lañu ñooñu seen doomu. waa Podor samay doom lañu doom waa Diourbel samay doom lañu doom Medina samay doom lañu ni ma war a jàppale sama doom ma war ko jàppale ñeneen ni ma war a jàppale jigéen waa samay sœur samay samay tànn ma war ko jàppale ñeneen ñi parce que tey yàlla ñëw na ci mbaaxam ci kàttanam bu ko neexoon du ma ko jox ma jàpp ne comme dama war a liggéeyal àdduna liggéeyal yàlla ma ne naa créé cellule bi créé ko dimbale ko doomu aadama yi. di sollicité toutes les actions parce que action tey mi ngi Sénégal gi yëpp mi ci gox goxaan yëpp seen liggéey rafet na maa ngi leen di félicité di remercier yéen la presse seen taxawaay rafet na ci lépp muy mbas bi muy ci yu nii. donc di félicité waa Médina di remercier la population de Médina di leen wax ne Sénégal jàpp ne waa Podor ay benn lañu donc Sénégal loolu moo fi nekk di remercier ñëpp daal di leen gërëm di leen sant. Yeah.